الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان فتعالت صيحات المخلصين من أبناء الأمة وشبابها تسأل في حيرة هل من مخرج هل للظلم من نهائية هل للتيه من هداية هل لهذا الواقع من تغيير كثير ما نسمع أو بعض الأحيان كل منا يقول نريد التغيير واقعنا نريد التغيير في واقعنا بقي ci yàlla ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu toro turu borom subhanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi bëri na lu nu dégg ay kàddu ay yuuxu di jib di génne ci kàddu gaa yu sell yooyu bëgg a jaamu seen borom danañ dégg ay kàddu di jib di génne ci gémmiñu doomu xeet wi ñi nga xam ne ay jullit lañ ñooñu nga xam ne ay ndaw lañ nekk ay jullit bëgg a sellal danañ dégg ay kàddu di génn ci seeni làmmiñ ñuy laaj ci ngëlëmtaane gii nu nekk hal min muxrij ndax am na lu nu ciy génne léeg-léeg nga dégg ñu ne dëkk bi kan moo ko mën a soppi moo lii nu nekke kan moo nu ci mën a génne hal li zuluma min nihaaiya est-ce que lëndëm tànge gii nu nekk am na fu muy jeexee hal li tiihi min hidaaya waaw sunu réer gii nu nekk ak ngëlëmte gi ndax am na ku ñuy jubal hal li haza alwaaqi min taxyir est-ce que actualité bii nuy dund am na changement soppi jaar na fi soppikuwul ñu nekk ci yoonu yokkute est-ce que yokku ngeen nuridu taxyir waaqiina al alim dañu bëgg sunu actualité bii nuy dund te mu metti mu soppeeku loolu ay laaj la yoo xam ne waxtu wu nekk ci jamono bu nekk dinga ko dégg ci làmmiñu doomu xeet wi lakin ayyuhal ahbab mbokk yi est-ce que xam ngeen ne lan yahdus taxyir li waaqina al alim illa bi tanfiz qanunu suluk al ijtimaai al ilahi mënuñu soppeeku mënuñu am changement mënu yëg ci sunu dund gi lu neex lu dul comportement bi yàlla wax règle yi yàlla wàcce ci dund wi yàlla mi tëral aw doxalinam ne doxalin bii dong ngeen di dund am changement mënuñu am fenn changement lu dul ci doxalinu yàlla boobu tabaraka wa taala li hada al qanun boobu rek benn loi la yàlla tëral loi boobu moom moo ko wax mu ne inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim na ngeen yëg ne coppeeku du mun a am lu ngeen soppi seen bopp bëri na lu ñuy wax di ko jàmbat naan dañu bëgg coppeeku est-ce que ñun soppeeku nan yàlla nee na bu ngeen soppeekuwul dara du soppeeku inna hada al qanun ayuha al ahbab laysa siaaran ajwaf loi yooyu yàlla tëral règlement yooyu mu sant nu pour ñu soppeeku pour àddina bi soppeeku nekkul ay xàmmekaay yu ñuy xàmmee nekkul ay mandarga nekkul siaar wa innama huwa tariq alwahid lilxuruj min mihnati l umma benn yoon la ay loi la ay règle la yu yàlla tëral pour xeet wi di lislaam génn ci nattu yu leen yàlla nattu feeg jaaruñu ci yoon woowu nii rek lay mel dara du fi soppeeku walan yahdus at taxyir changement du am dañuy sonn waaye coppeeku du am ndax yàlla moo ko wax sunu buggee coppeeku mi ngi am fenn dong illa iza sabaqa zalika taxyir fi anfusina da nga am dañoo bëgg changement dañu bëgg am jàmm ci kaw suuf dañu bëgg dund bu neex dañu bëgg sunu lépp yokk est-ce que sunu digganteeg yàlla yokku na bëgg nañ yokk ci ay dëkkuwaay yu lix ay oto yu lix ay tali ay ay waaye ci sunu jikko sunu digganteeg sunu borom dara soppeeku wu fi kon dara du soppeeku ayuha al ahbab inna zulma alxaariji wal udwan alwaqi ala almuslimin lan yazal illa bitaghyiri almuslimina ma bi anfusihim tooñaange gi di bàyyi ko ci yahudi ak nasaraan yi ñu koy tooñ jullit yi guddeeg bëccëg di leen rey di leen jaxase di leen noggat du mën a dañ lu dul danoo soppi suñu bopp bu nu changé woon benn bëccëg yàlla soppi àdduna bi ndax règle bi moom moo ko tëral qaid la inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim wala laka tasal comme nag dañu ne soppeeku la nu bëgg dañu bëgg a jaar ci yoonu yokkute wala laka tasal ayuha alhabib fama huwa altaghyir idan almatlub an yahdusa fi nufus waaw kon dañoo bëgg a soppeeku kon nan la ñuy def ba soppeeku lan lañ ñu laaj lan lan war a def ba sunu lépp soppeeku ci sunuy bakkan loolu buñ ciy tontu danañ ko tënk ci fukki tomb yanbari an yahdusa at-taghyir fi ashara ashiya fukki mbir bu nu ko soppeekoo sunu digganteeg yàlla soppeeku bu nuy ñaan yàlla di nu may lu nu bëgg yàlla defal nu ko annuqtatul ula tomb bu njëkk bi yambari an tahilla tawba makaan al maasiya dafa am benn barab bu nuy moy yàlla barab boobu foog ñu jële ko fi remplacer ko tuub place yi ñuy moy yàlla na nit ñi tuub dañuy moy yàlla di wan ne yàlla ñun doon laa bëgg taasil ilaa wa anta tuzhiru hubbahu kam ci ñun ci ñun ñooy mooy yàlla ba pare di wane seeni xar kanam seeni jëmm ñun de dañoo bëgg yàlla fekk ñu ngi dëkk ci ay bakkaar ba pare bëgg a soppeeku mënul nekk kër gi pour ñu am fi jàmm dañuy neexoog borom kër gi àddina bi yàllaa ko moom sunu bëggee neexoog àddina bi dañuy jubóog yàlla kon place mooy yàlla lan lañ koy remplacer mooy tuub bu nu tuubee rek tomb bu njëkk balaa juróom-ñeenteel ñëw yàlla commencé wàññi sunu mbir bu leen fàtte jamono yonent yàlla Moussa maral dafa amoon Moussa génn ñépp ci àll bi pour yàlla may leen ndox Moussa ñaan ba sonn ndox ba ña wàcc mun a yàlla lu xew man yow yaa ma yónni te yaa ne ma woon bu ma génnee xeet wi bu nu ñaanee nga may nu yàlla mu ne mbooloo moomu toog dafa am ku ma ci tooñ te fekk tuubul duma leen may ndox saa ne ah mbokk yi sunu borom nee na ci mbooloo mi dafa am ku ko tooñ waaye kooku noonu dimbali mu tuubaay waa ji fi mu toog mu ne man mii la mu tuub tuub bu sell ndox mi wàcc yàlla mu ne Moussa kan la yàlla mu ne Moussa naka laa la koy wanee bi ma tooñee wanu ma la ko ma baal ko di la ko wan kon nan tuub réew mi du neex de lu dul danoo tuub dañuy sonn dañuy nekk ay góorgóorlu ba xëy dee waaye dara du soppeeku parce que dañuy tooñ suñu borom guddeeg bëccëg ñaareel mooy yambaxi an taxulla attaa makaanal xafla mbokk yi naka la ñuy wonee naka la ñuy waxee danoo bëgg a topp yàlla te sàggan ku bëgg a topp yàlla doo sàggan ku bëgg a topp yàlla da ngay fagaru ku bëgg a topp yàlla da ngay takku ku bëgg a takk topp yàlla da ngay dëgër kon palaasu càggante gi dëkk bi sàggan nga xam ne doo fi gis lenn lu nit ñi bàyyi yitte loolu lan lañ koy remplacer mooy abta dañuy pare pour topp yàlla sunu toppee yàlla rek sunu lépp baax walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard yàlla nee na bu ngeen ma toppee rek ma ubbi xéewal yi ma leen dencal parce que xéewal yaa ngi asamaan dama koo tëj baat boobu la yàlla utilisé mooy la fatax naa dama koy ubbi mu wàcc kon bu nu buggee soppeeku dañuy topp yàlla yambari an taxilla aljiddiya warrujula walhimam alaaliya makaan almaymua walkasal walfutur ñetteelu tomb mooy mbokk yi bu nu buggee bu nu buggee am changement bu nu buggee yokk fokk ñu remplacer place u yaafuus place u tayal place u yaccaaral place u góorgóorlu ak nekk ay góor am yitte yitte bu kawe loolu mooy tax ñu dem ay nit mënunoo yokk te dañoo yaccaaral dañoo tayal dañoo yaafus fan ngeen di mus a gise ci àdduna yaafus bu yokk réew mi dañoo yaafus alal ji nga gis ñuy am yépp ñi ci ëpp dañ koy lijjanti waaye kenn liggéeyu ko milliardaires yi ngeen di dégg yu bees genn wàll gi ci ñoom ñépp alal ji ñu lijjanti lañ yor kenn ñaq ko léegi sax bañ nañ bañee moyens yépp ñoo bon pour lan pour nga am l'argent gars yi sax dañoo gëm ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti moo tax nga gis nit ñi làmb ji nit ñi song ko nit ñi song carte gi nit ñi song góor jigéen song caaxaan song musique song song pour lan doo def benn effort da ngay ñëw rek am xaalis ñépp bàyyi liggéey yaa caaral fan ngeen di mës a gisee xeet wu yokk wu yaccaaral wu nanguwul liggéey yaafus fu ngeen ko gisee amul sañ kon loolu foog ñu remplacer ko yambari ayuha al ahbab an yahilla al ihtimam bi tafawuq al ilmi wal ibda makaan al jumud al fikri wal aql foog ñu yëg ne dañoo war a changer bi tafawuq al ilmi sunu xam-xam dañ koo war a yokk nekk ay créateur waaye place boobu lu fa toog mooy al jumud al fikri mooy xel yi dañoo nëx sénégalais yi seen xel yi ñoo nëx xel yi nanguwuñu avancé ci capacité xam-xam capacité intellectuelle nanguwul yëf yi dañoo yàccaaral toog waaw ku ci liggéey ba am benn diplôme bu ndaw rek li ngay njëkk a def sa bopp muy uti loo def waaw bu fekkee loolu la réew mu amul xam-xam nit ñu amul xam-xam fu nit ña jëm yonent alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla ne iqra jàngal baat boobu moo njëkk a wàcc alquran yàlla ne ko jàngal yow yonent bi ko yàlla ne jàngal moom yonente alayhi salaatu wassalaam lan la wax rabbi zidni ilma yàlla dolli ma xam-xam yàlla nag ma dolli xam-xam moom yonente alayhi salaatu wassalaam lan la wax man araada dunya mu ne fa alayhi bil ilmi ku bëgg xam-xam ku bëgg àdduna mu ne demal nga uti xam-xam man araada dunya wa man araada al axira mu ne fa alayhi bil ilmi dama nga uti xam-xam da nga bëgg àdduna mu ne util xam-xam da nga bëgg alaxira mu ne util xam-xam dama bëgg ñaar yépp mu ne util xam-xam wa man araada huma maan fa alayhi bil ilmi wa man araada al ilm ku bëgg xam-xam mu ne fa alayhi bil quran na dem jàng al quran wa man arafa quran arafa rabba soo xamee al quran nga am sa borom wa man arafa rabba daa ilayhi soo xamee yàlla nga woo nit ñi jëme leen ci yàlla wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim Thank you. الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أيها الأحباب ينبغي أن تحل الإجابة مكان الصلبية ñeenteelu tomb wala juróomeel bu nu war a soppi pour nu soppeeku mooy wàll yi négatif ci njikko yi ak melokaan yi nañ fa def lu positif li ñuy gis ci mu manqué ci doomu aadama yi ci seeni jikko seeni melokaan seen lépp foog loolu mu denc ci ñoom pour ñu mën a yokk jikko yu yàqu yi ci xeet bi buñ ko defaraatul dañuy sonn ndax jikko mooy defar doomu aadama mooy tax nit baax su nit ñi baaxulee du mun a du nu mun a baaxal réew mi du nu mun a soppi réew mi juróom benneel yambari an yahilla al intimaau lil umma makaana tabiyati al garbiya bokk na ci li ñu war a changer pour ñu soppeeku mooy al intimaau lil umma mooy ñu faral jullit yi jullit jullit la war a faral jullit jullit mooy mbokkam jullit jullit la war a àndal tey balaa ñuy am lu nu neex sunu xeet wi yëpp ñu jël ko yóbbu ko ci yahud yi ak nasaraan yi xoolal nit ñi ni ñu gëmee yahud ak nasaraan ba tukki sax tukki tukki déggoo kenn di yéeg di dem gaal pour dem Arabie Saoudite de wala dem Égypte jàngi wala liggéey yi fan lañ gis ñuy jël gaal di dem Espagne Italie France di dee ci géej gi gëm nañ ne bu ñu toppul ci ginnaaw européens yi du ñu tekki xoolal loolu tey jeune sénégalais dañoo gëm ne bu ñu demul Europe du ñu tekki wallahi bu ñu fii nii xutba nii bu benn booy léegi gaare woon ci stade bi ne ñëw leen Italie lañ jëm ñu bëri duñ julli jumaa ñu bëri di lañ jóg bàyyi fi seen sijaada ak seen kurus ak seen dàll dugg ci booyum bi pour de moolu dun julli juma billahi wallahi taala billahi wallahi wa taala su avion gaare woon léegi ne ila oroba ñu ëpp ci ñu danañ jóg duñ eggali jumaa gi day dem bay ñoom egg naa xaamu julli ko foofu fuñ jëm lu tax ñu gëm ne buñ toppul Europe duñ tekki lu tax est ce que chinois yi topp nañ Europe est-ce que japonais yi topp nañ waa Europe te tekki nañ est-ce que Indonésie yi Inde yi topp nañ Europe te tekki nañ lu tax ñun ñu gëm ne buñ toppul Europe duñ tekki kon loolu foog ñu changé ko foog ñu wax ne ñun ay jullit lañ dañoo war a farak xeet yi farak suñu bopp ayuha al ahbab yanbaghi an yahilla al amal an nafi al mujid makaan al firar xoolal xoolal temps bi ñuy yàq ci Sénégal temps bi balaa ngay am lu la métti rek ñu jàpp benn combat di ko préparer nit ñi dootuñu liggéey ci la ñuy nekk rajo yi ci la ñuy nekk télé bi ci lay nekk bu combat bi ñëwee ñu nekk ci bu paasee ñu nekk ci ba kañ ba kañ xoolal temps boobu ñuy yàq waxtu bi ak waxtu nu mu seeree nga xam ne lu dem du ñëwaat yàlla di giñ ci waxtu wi ay aaya yu kenn xamul ci Qur'an wal asr والشمس والليل والنهار yàlla di ci giñ ñun ñu koy fawee te bu dem du ñëwaat juróom-ñetteel ينبغي أن يحل الفهم الشامل للإسلام محل الفهم المنقوص أو الملغوط juróom-ñetteel bu nu war a soppi pour nu soppeeku mooy foog ñu defaraan ñu defaraat compréhension bi ñu comprendre l'islam dégg bi ñu dégg l'islam foog ñu defaraat ko ndax dégg bu baaxul la te nu nekk ay jullit di tiitaroo l'islam te déggunu l'islam ñu ëpp ci ñun jàpp na ne l'islam dem julli ji la wala vendredi rek nga gàddu sa sijaada dem jàkk boo ñëwaatee pare nga ñu ñëpp loolu moom alak jàpp gi jàpp ne dégg l'islam mooy man jullit laa maa ngi julli ji waaye yeneen yi nag sa yeneen mbir yi yoonu lislaam nekku ci kon déew déggoo diine l'islam mi la wax man aw dundin laa sa dàll bi sax bala nga koy sol l'islam daf cee wax sa dàll bi bala nga koy simmi l'islam daf cee wax amul lu l'islam waxul ci nun parce que déggin boobu lañ ci am amoo droit def dara lu dul nga laaj lii moom a nga def lu ci l'islam wax wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fihi loolu lañ jàng est-ce que ba déggin boobu la am ñun suñu dégginu bopp mooy nañ dem julli ji rek ñëwaat suñu yoon ci leneen sa soxna yi sa doom yi ci xoolal tey ñi ëpp ci ñun ñu julli si jumaa seen waa kër jigéen ñi dañuy def ay boppi neen kenn du ci wax jigéen ñaa ngi takk góor ñaa ngi bënn seeni nopp yi am na ñu tëdd di nelaw ñii dañuy tox ñi ay mbër lañ ñi ay rappeur lañ ñi ay simbakat ñi musicien su weer dee mu ñëw la papa paquet suukar nga ni ko macha allah barakallahu yal na la yàlla yow loolu mooy dégg diine loolu dégglu diine foog ñu delloo si waat diine bi juróom-ñeenteel an yahilla al ifaar al mujtama al umma al fard dafa am lu lu dangereux lu daal mooy njëriñ loo fekkee sama boppama leen gënal du bañ naa leen loolu moo yàq Sénégal képp kun fi jox dara pour nga liggéeyal xeet wi foo ko jëmee sa poos xool leen milliards li ngeen di dégg rek ci Sénégal milliards yi ngeen di dégg benn nit mu nekk milliardaire te gisoo ko mu am tool gisoo ko mu bay du maçon du carreleur du mécanique du dara am milliard lu mu liggéey du dara rek nekk milliardaire fu mu jëlee milliards yi milliards yi ah kuñ fi jox lenn ndombal tànk nga war a liggéeyal xeet wi dan laan la profitool boo fi reppee ba nu wàcca la fi ngay torox nga gis waa ji commencé tabax kër goo xam ne ku ko romb seetaan ko oto boo xam ne laa ilaha bàyyi xeet waa ngi nii ndóol Sénégal la ngi nii ndóol ana milliards yi lu ko waral mooy jël sa bopp gënal sa xeet jël sa bopp gënal sa xeet nangoo wàcc ba toll ne xeet wi fukkeel an yahilla al amal makaana al yaas toog yaakaar yu tas yi ñu beesalaat ko dundalaat yaakaar xam ne ñun ñëpp bu ñu takkoo yaakaar day dekk waaye bu ñu yàccaaree nii rek lay continuer di dem ba suñuy sët ñëw ba ñooñu seeni sët ba ñooñu seeni sët ba keroog bu yàlla di taxañ asamaan ak suuf réew mi nii lay mel bu leen sonn bu nu sonn li ñu rey mooy naan ay sëriñ ñoo fi nekk Sénégal lu baax rek musiba du fi am ah lii de moom du jàmm moom te loolu wax kese la réew mi musi jàmm du jàmm rek moo fi am lii xam ngeen ne du jàmm bis bu nekk ngeen gis musiba xew fi kon du ay sëriñ du ay wali du ay tariixa loolu mooy baaxal réew Irak moo lu gën a baax ñu fa tëdd téeméeri yoon Seydina Ali fa la tëdd est-ce que ci Sénégal dafa am ku gën a baax Seydina Ali Irak a ngi nee di tàkk guddeeg bëccëg chaque jour ay 500 morts parce que dañoo dañoo bëri bàkkaar comme ñun nit ñu bëri bàkkaar yàlla da leen di nattu sikk nekk ci yàlla moo ko wax ixwatal iman hadihi laysat kalimat munaqama tuharriku lmashaa'ir li ñuy sàkk mooy bu fi kenn jóg jumaa naan cëy xutba tey kii suñu imam bi xutba wuñu xutba bi pour yëngal ay sentiment jamais bal hiya mufradat qanunu taghyir lii ay baat la yoo xam ne mooy luwaay yàlla tëral pour changement am dañuy sonn bu buñ jaawul fii dañuy sonn du du question ñu ne na na ay xutba yu neex déedéet ay tey pas-pas yi yëngu na déedéet bal qanun mufradat qanunu taxyir inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim dafa nekk réalité bu yàlla wax mu dëggu yàlla wax ko ci Qur'an sunu soppeekuwul dara du soppeeku pour sonn bu bëggee réew mi dem dañuy soppeeku wa fi kulli yawmin tasaluun maza nafal bis mu nekk nuy laaj lan la ñuy def waa nan la ñuy def haasihi al ijaaba tontu baa ngi nii tontu bi mu ngi nii ñun ñu julli soon juma bëgg a xam nan la ñuy def ba réew mi soppeeku yàlla indil na lu tontu inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim buñ buggee soppee nan sopp suñu bopp xoolal yow sa digganteeg yàlla noo mel kenn ku nekk fi nga toog poseel sa bopp laaj waaw man sama digganteeg yàlla nan laa mel nan laa mel borom xam-xam yi dañu ne boo xëyee suba nga bëgg a war sa fas mu bañ bul dóor fas bi de xoolal loo def yàlla ba fas bi bañal la boo nanguloon yàlla fas bi nangul la boo xëyee suba bëgg a taal sa oto mu bañ a takk xoolal loo def yàlla boo nanguloon yàlla oto bi nangul la soo xëyee suba wax sa jabar mu teg ci baat xoolal loo def yàlla boo nanguloon yàlla sa soxna si nangul la ila axiri inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nee na du ma soppi ay nit lu dul ñu soppi seen bopp lii mooy tontu bi ayuha al ahbab فلنغير هذه الأمور الأثرة نانو سوبي فك ميري سوني ميري سوبيك وانتظروا نصر الله نانو خار نمبل يلا بنو سوبي فك ميري ري يلا سوبي لي سونو لب سيغير الله لكم مجرى التاريخ ني يلا سانجي وون ديم يونس عليه الصلاه والسلام نيو ابو بكر نيو دوجو سي ديناي بي سانجي عمر نيو سانجي Ousmane ñëw changé Ali ñëw changé saxaaba yi ku ñëw rek jóge fale ñëw rek da ngay changé wala ba ñu changé ñoom ñëpp lu xew dañoo changé àddina boobu ñu doon dund kon foog nu changé bu nu changé fii ak ngoon rek yàlla changé nu changé nu lépp اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مغير الأحوال غير أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله